télévision Futur Média mbokk yi jërë ngeen jëf dellu nañu am mbégte mu yaatu ngir ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ca gën a fës dina bokk ci lakk gi am ca marché ba ca diwaanu Ziguinchor mu di marché boo xamante ne ji marché Saint-Maur bu Bokot lu tudd di marché bi gën a mag ci diwaanu Ziguinchor ay boori 6 heures ci suba ca la fa lakk tàmbali li ko sabab xamaguñu ko liñ xam mooy la fa yàqu bari na pompier yaa demoon na fa def seen kéemtalaay kàttan ba daal di fay sawara wi donte sax. ci coono bu mat sëkk ca la ñu ko defee cité baraka di cité bopp mu ngi ci ndakaaru ñu ràññee woon ko ci ay barak yu fa nekk barak yu ca bari def nañ ko ay immeuble jamono ji mu di projet bopp You Foundation pour un Sénégal zéro bidonville moo ko financé njiit réew mi Macky Sall rafetlu ko bu baax a baax di sàkku ci ñi nga xam ne ñoom lañu fa dëkkal ñu góor góorlu ci waggar ci sàmm ko gën koo mën a taxaw ndaje mu doon amal fii ci ndakaaru di fa waxtaanee coowal suuf ak li muy jur ne ay jafe-jafe nees di def ba loolee ñu tàggoo ak moom waxtaanee nañ fayit ñi soxla suuf di bay nu ñu mën a def ban mën cee jote loolee tënku ci juróom lu édition forum national sur le foncier Thioro Mbar Ndiaye dinañu ci indil ay leeral ñu waxtaanee ak yi nit wàllu tàgga jëram ak ñaari lu tour retour éliminatoire CAN féminine 2024 bay am ca Maroc Sénégal qualifié na fa li ko sabab mooy max ni la def diggam ak euh, Égypte ca Caire lañ ko doon football ndam li mu amoon moo ko mën a may kon mu mën a bokk ci boobile coupe d'Afrique muy ñaareel bi yoon gaynde Sénégal yu jigéen yi di ca qualifié mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci xibaar ngeen taaxeerlu ma faram fàcceel leen ko. dellu leen nuyu dellu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko junjëwoon ci bopp xibaar rek la ñu duggee ak yéen ci yàq ligi dooree xibaari timis yi ak lakk ga am ca marché bii ñu naan marché Saint-Maur bu Bukot nekk ca diwaanu Ziguinchor ay 6 heures du matin la fa lakk ga lu bari ci eh, ay marchandises ki bagages yàqu na fa li ko sooke xamase guñu ko yaa nga fa woon def seen kéemtalaay kàttan ba fay lakk gi doonte sax doon na loo xamante ne ji yombul woon ñu teewlu kàdduy leeral yooyu Lamine Ba ak Lamine Mandia indil nañu ko ci. ab lakk bu metti la marché Saint-Maur bu Boucotte di marché bu gën a rëy fii ci Ziguinchor xëy tey ci suba xal baa ngi tàmbali nag si biir marché bi waaye li nga xam ne làkk na ko si ay cantine ak i table bari na loolu. sapeur pompier nag bu ñu yegsee ñu ngi mel ni mbir yi dafa leen a xaw a ëppi doole ba tax na commerçant yi dañ leen mujjee jàppale di root ay siwo ak i paan di indi di sotti ngir mën a fay li nga xam ne moo di xal bi. ci jamono jooju commerçant yi nga xam ne seen cantine yi tàkkagul ñoom dañ doon rawale li nga xam ne nag moo di bagage yi génne ko biir marché bi ñi nga xam ne amee nañu ay yàqu-yàqu nag jamono ji seen rangoñ yaa ngi tuuru. maa ngi doog a jógee voyage bi amantière bagage yi su ma ko jëndee sori yi sori ñëw sa matin ñu ne ma marché ngi nag cinq heures du matin ma ñëw fii tombé ci quoi dépôt bi aussi dana des bagage bi parce que am na aussi yuy lakkul mais y a beaucoup de dégâts matériels mais <clears throat> mais ku ñu jàppale rek aussi ñu dem parce que état mosu ñu jàppale kenn mosu ñoo jàppale ñu ñoo nekk di xëyaat suñu ba toll fu ñu toll ñu dimbale aussi dañuy jël fekk moom ñu ngi jugee jumaa ji bi six heures du matin ñu jugee dugg si biir bi ñu duggee saxaat commencé jóg bokk na suñu njëkk jël suñu téléphone au sapeur ñu oo six heures quarante trois vers sept heures pile sappo dugg si ba premier car dugg si pour ñu gis beneen oto citerne bi daw dugg si mu nekk kon ñaari ñu aso côté yi vraiment gis nga beneen côté bi nekkee nële bu jeex na tàkk lépp lakk-lakk ñu nekk si biir jàppale leen ñu génnee bagage yi lakk-lakk bi mujjee am nii safara si moo daw dugg si li ko waral mooy bi dama bëri ay produits chimiques imagine six heures du matin ba à presque neuf heures ñu ngi fay mënut a jeex li ko waral mooy produit chimique moo bëri si marché bi tobaane ko ku nekk nag sa wërsëg nga fiy daax mais nag war nañ mën a xoolaat marché bu baax a baax a baax. ginnaaw bu ñu xeexee ak xale bi ay waxtu yu bëree bëri sapeur pompier yi mujj nañu fay li nga xam ne moo di làkk gi. Ali Cissé mooy délégué bu marché boobee doon lakk ñëw na ci li tax lakk gi fayoon ko yombul ndax jàpp na ne. commercant yi jiitu fa lakk ga amee woon li leen yitteeloon mooy fexe nu ñu sowee seen i bagages waaye du woon fexe nu ñu fayee lakk gi seetaan googe ñu seetaan nag moo tax sawara wi jël benn dayo bi ba lim fa yàq bari lool Ali Cissé délégué bu marché bu euh, boobee doon lakk mu di marché ba nekk ci siggi Ziguinchor ñu teewlu ko ci micro euh, Lamine Ba ak Lamine Mandiang ñu bari nag biñ ñëwee la ñuy gënoon sonal maanaam oto ko ñu attaqué safara si mais dañ doon génne bagage yi mais jëmoon a fexe safara si fay. su ko defoon lu bëri mën naa bañ demee nii mais heureusement nit ñi dañ doon jàkkantoo di génn bagage mais biñ ñëwee ne am na ñu mujj a ñëw moom biñ ñu wax solution bi ñu wax moo ne nañ jéem a safara si biñ ko maîtriser nag na cantine yu bëri yàlla def na mucc na li lakk nag bëri na table yeeg cantine yeeg eh, hangar bi ñu fa nekkoon yow dara desu fa moom lépp jeex ak actuellement dañuy def évaluation xam ko parce que actuellement mënuñ ma la wax ñaata la mais bis buñ ko defee ba pare rek dañ euh, leen xamal ñaata moo fi yàqu ñu man leen ko parce que tey bu ma leen lii la wax dëgg yàlla xaw ma dëgg dëgg dëgg actuellement li bëri na lool lool. Ah, xat-xat bi commune bi am na ci part mais ñun am nañ ci part parce que marché bi normalement bu njëkk nu meloon ak léegi nu mel du benn bu njëkk am na bu njëkk oto mënoon na fee dugg wax dëgg yàlla léegi oto mënu fi dugg. waaw loolu nag am na ci part ñu responsabilité mais ñun xam nga moo citoyen mënuñ corriger moromu citoyen du dëgg ñun bu ñëwee dañu alerter rek bu ñu alerter a ah, kooku bu neexee mu def bu ko neexulee mu mu kii mais daal. en tout cas daal na meloon bu njëkk bu ko meloon mën naa bañee demee parce que sappoor wax dëgg bu mu ñëwee amul jaar pour mu jël racole bi eh, da koy teg oto bi fii jël racole bi sànni ko ci biir racole pour mu am ko mu egsi agsi fu lakk bi am dafa jafe woon dafa jafe woon lool lool lool moo tax affaire bi mu demee nii mais su fekkoon ne teeloon nañoo mën a am accès pour mën ko kii mun na bañ a demee li lakk nii mën cité baraka dib cité bopp mu ngi fii ci ndakaaru ñu ràññee woon ko lool ndax barak yu fa nekk bari woon fa barak yi nag tuxu nañu ay taaxa fa nekk jamono ji lu toll ci ñaari téeméer ak fukki appartement ña nga fa mu di projet bopp You Foundation pour un Sénégal zéro bidonville moo ko defar njiitu leen Macky Sall mi ko doon daloo am ci mbégte sàkku ci ñi nga xam ne ñoom lañ fay dëkkal ñu def seen ay kàttan ba sàmm barab ba Pape Fara ñi nga ak Pape Sangone Mbaye ay kër yoo xam ne ku ne daa fàq rekk dëkk ay baraak yu doy waar moom la dindi teg fay immeuble yu bees tàq yu mag li ñu mel nag ñu daal di koy soppi def ko ci biir ndakaaru gi ay nit dëkkoon fii ci condition yu doy waar. mu doon cité bu yàgg lool wax ngeen ko amoon it coono yu bare bare waaye nag ñu sant yàlla bi nga xamante ni am na ay partenaires yu ñëw seet ma madame Owen bi jiite ko ak monsieur Saviris ñu ne buñ leen joxee suuf si ak li ko dend dinañu tabaxaat cité bi ñi fi dëkkoon ñu loger leen duñu fi génn su ko defee ñu mën a moderniser quartier Baraka. lépp ñaari téeméer rek fukk ci appartement ñu def ko ci cité Baraka famille bu ne daal di am li nga xam ne mooy sa appartement. li nu mel njiitu réew mi daal di fexe ba mu am askan wa di ko rafetlu. dama def ab gént boo xam ne ëpp na fanweeri at ak juróom-ñeent gént bi nag ba mu gisee président Macky Sall ci la réalisé wu baraka doon ay immeuble kon sama gént mot na. xam nga ñun ñi dëkk fii di gis ñaar fukki at ca gannaaw ak lu ko ëpp. cité bi nekkoon loo xam ne ay baraak la nekk loo xam ne dafa mel ni bokkul ci Sicap ci loolu la président ne ñii fii lañ juddoo seen yaay yi fii lañ juddoo kon boog fii la ñu war a toog ñu jàppale leen ñu toog fi loolu moo indi cité bi tey ñu jóge ci baraak nekk ci ay étage quatrième étage ak yooyu. ngir nag dëkkuwaay bi daal di mucc ay foofu ci cité Baraka li jëm ci entretien bi war nañ cee taxaw njiitu réew mi di leen ci ñaax. yéen waa Baraka ngeen jàppale ñu jàppale seen bopp si site bi bañ a mel ni mu meloon ndax dëkkuwaay bu fekkee amul cet bu ñu ko dul nettoyer bu ñu ko dul bale suñu deful li ci war day dal yàquwaat ci saa si moo taxoon promoteur bi bi ñu defaree kër yi ñu ne nañu fexe ba kër gu ne ñu wut as tuut soo xam ne dana permettre làmp yi ci biti ñiy nettoyer ñu koy def cité bi fu mënti toll di ànd ak ceet cité Baraka soppi xar kanam ndax politique bi état jël def ko ci wàllu logement projet bi nag ñi ko financé mooy You Foundation li ñu bëgg nag moo nekk dëkkuwaay yu doy waar yi ñu soppi seen xar kanam. ñeneen a ngi ñu bëgg mooy hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga. hôpital la bopp bari woon na lu mu manqué taxoon mu indi ak cooxe ci paj mi loolee nag dimbili nañ leen ko muy matériel yoo xam ne daañu ko mën di jëfandikoo ngir mën a dooleel seenu liggéey ca matériel bokk na ci fauteuil dentaire ak ay couveuse mu doon mbégte mu rëy ci liggéeykat yi doon it mbégte mu rëy ci askan wi nga xam ne ñu yitteewu boobu leen bu di hôpital amadu Sakhir mbay bu Louga Louga la ñuy dem fekki fa Thierno Birahim Fall ab loo bu am solo ci ay médicaments ay jumtuwaay ak yeneen consommables médicaux moom la kilifay hôpital amadu Sakhir mbay bu Louga réceptionné loolu nag mi ngi am ci jamono ju nga xamee ni si bërëbu pajukaay bi soxla woon na ko lool. dentiste bi soxla woon na fa tey récemment la ko wax ñëw na ñu doon xool na lañ ko amee di ko jënd ba ñuy xalaat partenaire parce que c'est assez cher. donc loolu problème bu réglé la couveuse yi manqué woon na maternité manqué woon na pédiatrie loolu dina am lu mu wàññi bu baax am na aussi. ay matériels yoo xam ne orthopédiste bi dina ko soxla gis nañ ko fii. kilifay hôpital bi di xamle ni don bi nga xamee ni jot nañ ci tey jii bëri na lool lu nga xamee ni si dina ko saafara waaye itam njariñ lu nga xamee ni dina ko jural askan wi fii fajoo. parce que si am na si ay consommation bi nga xamee sax amuñu ko woon. Euh, am na yi nga xam ne doon nañ ko wër sax au niveau national duñ ko gis mu nekk lu am solo loo xam ne ne suñu médecins yi dañ koy soxla donc mu tax ne yooyu nag suñu wàll liggéey wàll fonctionnement yooyu dinañ ko mën a utiliser euh, si service su hôpital bi yëpp ba nga xamee ne population bi dinañ ci mën gis seen bopp. lu nu mel nag mi ngi juddoo ci ab lëkkaloo bu jox ci diggante hôpital bi ak Ibrahima Diagne di ab doomi njàmbur bu nekk ci réewum Italie. ko hôpital rek ak ay moyen am mënul euh, assurée lépp donc partenaires yëpp ñu ngi leen di woo pour que lii cee def ñoom ñëpp ñu mun ko def ba nga xamee ne hôpital bi dina mën a gën a jëm si kanam dina mën a assurer une meilleure prise en charge parce que diaspora bi. ak yooyu yëpp ñu ngi leen di woo. don bi ni mel nag lii di njëgu garab yi rek suñ ko xaymaa toll na ci ay téeméeri téeméeri million te jumtuwaay yi dikkagul lépp nag ñu def ko ci ab conteneur indi ko ba mu yegg yegsi fii ci Louga. waxtaane léegi suuf si ak jafe-jafe yi ci am xëyee nañu tey jii ci ndakaaru am ndaje mu di sixième forum national sur le foncier. fa la ñu indee nees di def ba indi saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne yëngu ci wàllu suuf ñu ngi koy am ñi nga xam ne bëgg nañoo jote ci suuf si ba bay ko ngir li ñuy dundee doon lool doose ko dañ ko jëggaaneeti mu di souveraineté alimentaire bëgg nañu ñu taxaw ci lii lépp waxtaanee nañu ko ci moom yi leen daje eh, Thioro Mbar Ndiaye Seck. wàllu suuf ak wàllu dund gu doy ñaari mbir yu ànd donte jot ci suuf si lu jafe la fii ci Sénégal. ñu war a ci conseil sécurité alimentaire mooy euh, fexe ba képp koo xamante ni si yaa ngi euh, liggéey ci wàllu mbay te soxla ci ñu ba seet ñu nan nga mën a amee suuf te du wàññi euh, doo yàqal ñeneen ñi te it anam bi nga xamante ni moom lañuy saytoo lépp lu jëm ci suuf file ci Sénégal di wéy di doon jafe-jafe li ko waral bari lool. ak fii ci Sénégal nag bu ñu xayma euh, suuf gi buñ koy xayma ci suñu koppar yem na yegg na ci ñeenti million te liñ ci ëpp ci suuf yooyu daanaka dañ leen exploité moo tax nag euh, jamono ji suñu mbébét mooy xool suuf yi nga xamante ni euh, lii ci des nan lañu ñu mën a def ba gën a yokk koom gi ak it tamit yii nga xamante ni euh, ñenn ñi dañ ci gën a mën a indil ak koppar goo xamante ni dina jariñ askan wi donte pàcc bu am solo ci suuf si file ci Sénégal ñu ngi koy exploité jafe-jafe bu jëm ci wàllug dund gu doy mi ngi wéy ba tey. mbirum suuf nag ak euh, yoroñ geek euh, taxawaay bi sonal du rek Sénégal la sonal ah, daanaka dafa wër àddina wërngal këpp. Euh, li koy gën a sos nag mooy lii nga xamante ni yenn ci suuf yi nga xam ne dañ ciy bay yenn yi nit ñi di ko jëfandikoo te jaarul ci yoon boo xoolee li ñu duppee Eh, nit ñi ni ñuy yokkee di jëfandikoo suuf si maanaam di ci am ay dëkkuwaay loolu it yu eh, gën na sos mbirum jafe-jafe suuf yi nga xam ne ñu ngi koy dund te jafe-jafe yooyu nag xam naa ni eh, pour ñu indi ci saafara il faut mu gën a sos ak waxtaan goo xamante ni dinañ xool yan yoon lañ war a mën a jaar ba teggi jafe-jafe yooyu nga xamante ni te toujours ci mbirum suuf lay soso partenaires technique ak financiers société civile baykat ak ñeneen ci ay organisation joxante loxo ngir rekk ñu gën a mën a saytu ana naka la ñuy lijjantee coowal suuf fiile ci Sénégal naka noonu lépp lu jëm ci souveraineté alimentaire surgis di syndicat gi jaboote ñi yëngu ci wàllu yoon doxub ñaxtu bi ñu namoon teg nañu ko ci suuf waaye nag gerew la ñu suubu gerew bi tey ji la ko tàmbali fas yéene wéy ak moom suba nee nañu ministère bi ñu dénk wàllu fonction publique na muy doxalee ak ñoom moo leen neexul mu di lool ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax gis nañu ne daal ak saboté da cee am ñu teewlu kàddu yi euh, maître Aya Boun Malick Diop mooy secrétaire euh, général bu SYTJUST di syndicat gi jaboote liggéeykat yi ci wàllu yoon ñu déglu ko ak Maymouna Ndiaye. SYTJUST ci cosaanam bu daan grève da daan tàllal mais dañoo xool ak ak yelleefu ñi nga xam ne du ñëw ci këru àttekaay yi. di fa dox seen i soxla te di ay doomu Sénégal la ñun am ay àq ak yelleef yoo xam duñ ko war a sàmmonte ñoom looloo tax ñu décider di def ñaari jour rek ci biir semaine bi pour le moment léegi nag grève bi mënoon na ñàkk ndaxte euh, li ko mën a ñàkkloo mooy ministre la fonction publique galo Ba dafa waroon ànd ak ministre la justice si corriger yàqute yàqute bi nga xam ne ay nitam ñoom ñoo ko indi boo leen xoolee décret boo xam ne duñ ko adopté woon en 2018 président de la république engagé wu ci woon def ay réformes statut travail de la justice yi xam ne li mu doon jur mooy ñu jëlee greffier yi hiérarchie B2 yóbbu leen hiérarchie a jël ñi nga xam ne ay fonctionnaires lañu dugal leen ci koor bu bees bi ñuy wax assistant des greffes des parquets dafa am ay nit ñoo xam ne dañoo nekk fonction publique nekk ci entourage Gallo Ba ñoom ñoo ko yàqoon ministre de la justice ba mu ko comprendre nag ah mu euh, décider defaraat beneen. Euh, projet de décret jox ko galo ba pour mu porter ko à la signature du président de la République mais galo ba dimbaliwul ministre de la ministre de la justice dafay déglu ñooñu xam ne yàq moo leen tax a jóg. président de la République moom la yoon gàll mu respecter le bon fonctionnement de ces institutions moo tax ñu ne président de la République na ñëw nangu mbir yi ci loxo galo ndax dafa mel ne dafa ëpp galo. ngir waajal élection présidentielle yu 2025 yi am nay mandataires yi parti politique yoo xam ne daje nañu leen ngir doon leen tàggat ci constitution bu yees bi ak it ni ñu war a defee seen dépôt candidature formation la bopp direction générale des élections moom moo ko organisé woon ngir may mandataires yi ñu gën a xam bu baax a baax ana nees doxalee ci élection seen digg ak lii di conseil constitutionnel wàllu dépôt parrainage ak li nga xam ne moom la laaj. wàllu aada ak cosaan ñeenteelu édition ndaje mi ñu naan Africa Fashions Awards doon amee fële ca doo mu Sénégal bopp mi ngi wuyoo ci turu Khady Diop Diémé ñu gën koo xam ci Lay Diza wane na fa boppam bu baax a baax ñu ràññee ko fa ak raaye boobu jox nañu ko fa mu xam leen nag ne raaye bi day lu koy gën di motiver lu koy gën di dolli courage waaye da koy gën di sawarloo ci liggéeyam ndax bëgg na fu mu mën di toll di wane boppam rawatina ci wàllu stylisme gi mu nekkee Ibou Diouf ak Mouhamed Dieng daje nañu ak moom reportage. mu amati ndam yokk ko ci li nga xamante ne jot na ko amat léegi. Khady Diop Diémé di ab mannequin bu ne nag fu mu dem dafay teewal réewam Sénégal bu baax a baax ndam bi mu mujjee am rek aju ca la mu jël fi nga xamante ne mooy ca Cotonou fa ñu doon amal African Fashion Award. samay morom laa fa fekk ñi nga xamante ne ñoom laa ko jonganteel donc euh, bi ñu waxee ne trophée bi Sénégal lay jëm c'est normal que ma kontaan dama dama kontaan. Euh, ko commencé Ziguinchor euh, après ma ñëw fii Dakar. intégré Dakar nekkoon fii ci benn agence et ma commencé di défiler entre di def ay euh, le tour des des régions du Sénégal noonu noonu ba ni ma commencé di génn ci sous-région bi. Euh, euh, participer naa événement yu bëri comme la Guinée Conakry Fashion Fest c'était en 2021 en Guinée Conakry. kii ñuy woowee Ladisa nag bokk na ci mannequin yi nga xamante ne jamono ji ñoo ci gën a xereñ. li koy firndeel rek ndam bi nga xamante ne jëlee na ko fële ca Cotonou jury bi moom dañu kontaan lool ci taxawaay bi. tey bu ñu génnee ñu gis yeneen dëkk yi nu ñu valoriser mannequinat bi alors que ñun mënuñu am loolu ci suñu dëkk c'est vraiment dommage dëgg fa yàlla parce que fayuñu ba pare joxuñu suñu suñu gëdd daal. sénégalais yi joxuñu mot bi gëddam te loolu li nga xamante ne ñun ñu koy jooytu lu metti la si ñun. yenn saa yi dafay liggéeyal boppam waaye tamit lu ci ëpp ci ay yëngu-yëngoom agence yi la koy amal mu ne nag am nay projet yu mu am ngir jagleel ko réewam. j'aime pas trop des projets mais il y en a de projet en cours mais li ma gën a focus ak li ma li ma kii mooy instant bi surtout c'est c'est d'aider les enfants de la rue parce que à chaque fois su ma leen di gis rek. sama xel dafay am fu may yóbbu donc euh, am naa projet pour loolu tamit pour jàppale xale yooyu noonu. gannaaw bu mu jëlee prix bi di révélation mannequin féminin te ñu ko doon amal ca African Fashion am na beneen raaya boo xamante ne jëlee na ko ci Fashion Award 2023 yi ñu doon amal ca Cotonou lay disa nag bokk na jamono ji ci mannequin yi nga xamante ne ñoo jël raaya bu am solo boobee. dimbali entreprise yi ba ñu mën di suqali ko bu baax a baax tege ko nag ci wàllu information financière yu wér péng loole mooy bëgg-bëgg oneka muy ordre national des experts comptables et comptables agréés du Sénégal ñu lëkkaloo ci nag ak banque mondial naka noonu it gouvernement bu euh, Autriche ak 3FPT euh, fexe ba teg programme boo xam ne buñ ko tëggee daal bu ñu ci jàppalee ñii di entreprise yi danañ mën a suqaliku ci anam wu wér euh, Mor Dieng mooy président kàddu yooyu dénk na ko ci Ibrahima Kane jàppandeegul des na ci dellu siwaat waxtaanee leneen muy wàllu tàggat yaram ak ni ma ko junjee sànq ñaareelu euh, tour retour éliminatoire CAN féminine 2024 ca Maroc lay amee Sénégal kon qualifié na ca la tax kon ñu mën caa qualifié daal moom mooy euh, ndam loo xamante ne ji am nañu ko wala bokk match nul boobu def nañu ko seen digg ak Égypte ca Caire fa lañu ko doon euh, footballé bii di ñaareel yoon kon gaynde yi di qualifié ci boobile compétition Sénégal feneen fu mu qualifié moo di vingt sixième édition coupe du monde handball loole mu di lool histoire da koy jàppoo ndax euh, ginnaaw match nul bi ñu am défaite boo xamante ne ji amoon nañu ko seen digg Chine. mais daal euh, def nañ cay jaloore Cheikh Sadibou Diarra la ñu ci àndal. lii di guleet équipe nationale bu jigéen bu Sénégal bu handball jàll na ci ñaareelu pàcc bu mondial jaloore bu rëy ginnaaw ndam bi mu am ci kanamu Chine ñaari sélection yëpp mënoon a jàll seen ndaje yombul woon dara surtout ci première mi bi équipe bu nekk am neuf buts ñaari sélection yi des tolloo but ba presque xaaju deuxième mi bi. gaynde yi am yéen a dugg ci taarixu sport bu Sénégal dañuy yéegal seen niveau ci wàllum défense ak ci wàllum attaque ci njiitalu na Sagna chinois yi dootuñ dugal jamono ji nga xam ne gaynde yi dañuy dugal fukki but ci ñaar fukki simili yu mujj yi Sénégal mujjee jël ndam li 22 but ci 15 lii di ñaareeli ndamam ci ñaari mondial yi mu bokk li ëpp solo di jàll na ci tour principal bu 26e édition bu coupe du monde handball bu jigéen ñi gaynde yi am mbébét yu mag motal nan seen yéene bu njëkk Cheikh Sadibou Diarra jërëjëf mbokk yi ni jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi 20 di ngeen ànd ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop ci xibaaru tubaab yi yàlla nañu yàlla dolli jàmm ñu fanaan jàmm ba sub ak jam